Yeah. salaamaaleykum monsieur Racine Talla directeur général RTS man bay Jagal teraanga ji nga yónnee ci man muy suukaru koor jot naa ci maa ngi lay sant di la gërëm di ñaan saa borom yokk saw fan ak sa wér musal la ci musiba yi ak balaa yi sàmm la sàmm sa njaboot may la ay ndam dagal jógal delloo njukkal te sant Racine Talla nga waat fexe buur ma wax li tax ma jóg di sant yàlla sant yoneen sant la yow directeur sant directeur rajo ak ñim àndal am jom nangoo liggéey ci njub la ñuy jaar gor laa di ab jullit nga sedd ma cër bu doy teraanga mu di suukaru koor sa jëf ji rëy na dafa sedd saab xol may ñaan ci yàlla menn ndox bañ laa gaar cinquante mille yi nga ma yónnee ñëw na dalal nga saam xel maa ngi dollee yaakaar 2003 ba léegi maa ngi RTS daf ciy jaloore ñëpp xam saak njàmbaar benn directeur mosuma jox tànk walla gërëm téewul muy xëy ci saawaar na yàlla ful sa fan wi dolli la wér musal la yit ci bépp noon bu lay fiir ngërëmal yàlla yërmandeeku njëggal yàlla na nga ko am te yàlla far say bakkaar Racine Talla artiste la di baylo kuy alpulaar xam nga ne maa di seen buur Racine man sama xol daa sedd ma doon géwél di way di jooru saa géer bay jëgal communication la qualité qui fait la différence